ñaañ waxtaan nak ñu waxtaan sérieusement yow yaag yaag boy bi lan la ci lan ngeen xamanté fan ngeen xamanté ak li tax boy bi top la mbëgg yàlla moo ko def wona gi nga mbeug mbeug mbeug mbeug amé so ci sens la dégg c'est deugul deug way kumagal bop waaye mais yow bëggaabuloo yow bëggaabuloo lan bon lan la xalé bi wara xol ci yow bëgg la bëggaabuloo eh. bougé wu ma centimètre eh, yow do bougé eh, centimètre nga melni neew bu jog ni nga taxaw sama kanam maa gennal ci biti la la wax yow wi ma dangaa nopp ñaaw ñànk muy sang nga koy yéendu xam naa lépp di moom duulkat la maa tax eh. ki ma wax doo eh, wax ndax eh, duulkat la ma duulkat la wii ma li nga nekkee ak moom ci koñ bi yëpp xam nañ ko dégg nga xamoo la wax la xamoo man yow xam naa da dem géej waaw benn jour fekk nga ma fi dem géej waaw fa nga xamante booy bi waaw du la bàyyi fekkee ni ngay toogee fii keroog noonu nga sangoo booy bi du la yow damay ubbi sa yow yow laa war a waxal yow. <laughs> ki nga xam ne nduulaan la dëkk. wuy ma kii bu dee duul kat lépp luñ la waxal dëgg la. waaye buy sangu nga koy yéendu. waaw waaw waaw waaw sol waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw amul lu may wax ak ceebu yàpp ngay sax. Eh, waaw ceebu eh, yàpp ngay sax nga caf nga nga saf ceebu jëm bu loof bu loofee tey mu sam mu jeex. miin naa ko ci yow si lala. miin naa ko ci yow sampatil jeeg te jeeg bu sotti nga. waaw waaw naa nekk jeeg kàlla jeeg bu roode. tubaab di kàlla loolu ñëpp sa bëti waaw. dama yëndu. <laughs> yàlla yëndu booy bàyyi lii di pour yow. dama ne maa may sëñ eh, ko rek. dama lay noq ba ma waxaatee bàyyi lii. du la wala noq nga noqaat di yow ay daal di noqaat. yow ngay toog fii nii di sol sa yu gàtt yi sa. doole eh, bul ma tax a wax de. wala sa boy. boy waaw damay sa moom ma yónn dama lay nokk léegi laa la wax. waaw kasa faala nga. xam nga nag xam nga bëggoo bañ ku la wan jaal nga xam. waaw bu nii la mën naa ne de. ba doo fee sama kan xale bee la xamal loo mës ta xam. waay waay yow dina la may yaa ko bëggoon a xam mënoo koo xam. Eh, sama lan eh, eh, laa xam ci yow oui ma lan laa xam ci yow dama tey dëkk doon saako soo soo doon naa tëj ko ba nga nekk. lan laay xam ci yow yow lan laay xam ci yow lan laay xam ci yow laa wax lan laay xam ci yow ko sa jëkkër yow dimbali ma sa jëkkër jooju lax la puuca bi yow sa jëkkër lax la puuca bi mu yor boo boo xool man bu dof lan laa koy doyee. caa ma few pooy. soo ma waxee yàlla na fen man nokk la de. du yow xam nga ma. jugal fii demal demal. soo ko jotoon wala si nga si nga bàyyi sa waay. nga ne. boo ci bit baax wala. ña ko demal ña ko demal. léegi dañu ko ala wala qualité ko ba mu liis. waaw soo mu doyaatee ubbi sa naam am na seen wa tala ma tudd taal yi saf yi nga ma koy dox. Ah, loolu li a toog ci kër gi xam nañ ko. la la puuca bu yoroon la puuca dinaa toog. bu la la la bu ko wax booy Leya. yow moom duulkat bu ne nga duulkat booy bi dem na man ak yow fi des tay laa lay muus ba nga xam ne pom du ma la toogal toogal toogal toogal. toogal xaaral ma surtout man gën a sax ale yi dafa saf. sa are laa bëgg ma are xaaral xaaral walaay ko doon ci wéy na nga xam maa grand xam nga naa la lus naa la. ñànk waaw waaw xaaral ma a yow Samba Ala nga

ci nga bokk yow paxa ma mënu maa indi sama gam fii ku nekk sama gaal mu am kenn ku muy levanter yow nga bàyyi fii nga bàyyi fi waa kër gi duñ di fa foolee di ànd ak imbécile yi ñeneen booy bàll puuta ci biti yow yow yow sam ala la yow dof bi nga doon sa ko toogee di sàgganoog sa génn génn kër gi nga ne ma bii doo ci ñam lan laay doyee bii yow génnal kër gi man wax nga li ma doon. waaw yow wax nga li ma doon. da ngay déglu da ngay déglu wax nga li ma doon wax nga li ma doon. yow duulkat nga. yow jeeg nga. yow roode nga. yow sàcckat nga. yow këfkatu alalu jàmbur. ak yow kan moo gën a yées. yow nekkuma fi di limalante. nekkuma fi yow jàll bi rek yow xam bëccëg nga ah, jël daal. mooy faj sama situation xaaral jël daal. mooy faj sama situation ndax jéeg ma. maa xaaral ma xeexu maa xuluma dama yàq ñaari baat yu ñaari baat laa lay ñamal ak. tam sama yoon yi ma bëgg a dégg rek nag. génn génn kër taxawal. génn kër gi. jugal fii doo dégg. daa ah, ma ñëw dama dama dama sa bu lax boobu dama li mu jëwaat sa bu lax boobu boo xam ne boo nga xam. ba ba banaana bu def sept ans ci ci naaj bi. mën ngay wax sa xam ba ma njëkk benn la mooy dama bëgg nga nga kàcc ma nga si nga génn comme yow ko sa xol ma nekk ma dama bëgg sa sa vie nga génn ko ci man. duggoo sax nga bàyyi ma ma bàyyi la. duggoo sax mu fo ma soo lombee ni ma lomb. duggoo sax benn mooy benn. deuxième xaa bala. waaw waaw moom nga nga la si sama sama sama 18 nga génn ci ba set wécc. say 18 xam nga nan laa ci troisième balaa amee bonus. man c'est la première fois c'est la dernière fois saa ko dama nga di ko nga di ko tudd salaame bi bàyyi ka du pour yow. yow eh boo ma waxatee sama ànd kondaa bi du pour yaw man nokk la ba nga tëdd yow lan laay doyee sa ànd kondaa bi laa koy doyee lan laa koy doyee ñànk sa noppi di mel ni réseau nga taxaw naan ma ay sama anaconda bi yow kii moom dina la bàyyi ci nii wala mu bàyyi la ci naa yaw xam nga ni bu ma la jugalee bi nga bàyyi kii ak noo ko a bàyyee. waaw xale bi moom fu mu koy ba tax mu ne du la moo ko xam jugal man maay toog. man man maa fi may désir watu jël toogal ni sap waaw watu jël ma ko waxee watu jël rek man parce que watu lay ci juróom lay lay jam ba pare xeeñ ji ci ñànku musuma koo gis thank you